parce que ku xam PDS xam ne APR si la sosoo ñun ñi ñëpp fa la ñu jaar man sama responsable départemental Famara Senghor lañu ko doon wax mu nga day toog tey ci hémicycle ñun ñëpp fa la ñu jaar tey ba ñëw tey ci parti fi ne nangam Macky Sall bi suñu sëriñ PDS la jaar tey ba ñëw fi kon solidarité groupe wax naa mën am suñu diggante ak ñun ñii wax nag tey ñoo doon accusé dootuñu uyu ji juge yi wax tey ñoo doon tuumaal juge yi ñii wax tey ñoo teg lu ne tey ci juge Sénégal ñii wax ñoom ñoo koy wax tey kon ñun am nañ fierté ci suñu réew am nañ fierté suñu ay doomu réew rapport élection yéen a ko tudd yéen a koy wax ñun lu ngeen pare pare nañ ko lu réew mi d'accord d'accord nañ ci loolu nañ amoon tey ci lu ñuy wax maa ngi sant waa Sénégal yëpp di ñu wax ñëpp Sénégal dootul amati président bu mel ni président Macky Sall on le dit en haute voix ci yar bi ci teggin bi ci dal ak bugg Sénégal ak li mu ko liggéey benn président la du ko def parce que ñun nag démb fi la ñu fekk Senghor fekk nañu fi Abdou Diouf fekk ñu fi Abdoulaye Wade fekk ñu fekk ñu fi kon ay nit bu ñu jógee tey ci mbedd mi ñëw taxaw fii di wax tey naan Macky Sall nangam ak nangam ak nangam Macky Sall yàlla bu mel ni ñoom réew mi ne Sénégal ñëpp a ko bokk kilifa diine yi fi nekk opérateur yi fi nekk di liggéey seen alal du ñu ko jox ay wuyu ñoo xam ne bu guddi ci ñu yekk naan ay xale di dem ay siit bote di wuti ay jigéen ma ne kooku amul confiance mérito tey fi ne nangam kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam <coughs> Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Massata Samb, suivi de Alioune Gueye. salaamaaleykum président ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre du travail di nuyu sunu collègue député yëpp. di nuyu aussi presse bi nga xam ni vraiment ñu ngi fi nekk saa su nekk di jàllale information yi fi jaar yëpp tey foog naa ni ñun man damay wax ni yàlla rek moo ay ci póotum buur moom da ngay dalay bàyyi ba nga weer mu ñëw xëpp ca ndox tey yéen waa wàllu ñun foog naa ni ñun man pur laa bokk sama président di Serigne Moustapha Sy foog naa ni lu ne daj na ko ndax waa PDS kon ñun du leen xeex ci lenn lenn loo xam ni injustice la bu dal seen kaw kon dañuy dañuy taxaw di leen jàppale ci li ngeen xam ni tey moom ngeen bëgg mu leer ndax ñun lu leer rek moo ñu ñor mais lii problème bi mooy ñi nga xam ni tey jii ñoom ñoo leen li naan bañ bañu démb suñ bañee tey suñ nangoo tey seeni pexe dafa jubul mais ñoom ñoo condamné woon Karim Wade man loolu rek moo ma jaaxal ñoo ko exilé ñoo ko daj ñoo ñoo ko def lépp loo xam ne lu leen metti tey cest di dire dëgg su jotee dañ koy wax yéen dama foog ni da ngeen dem ba ci biir xamatu leen bu ngeen jëm ngeen bëgg ñu reporter élection yi mais xanaa demu leen entrenement xam nga compétition soo koy def il faut que nga entraîner man sama candidat yéen sax yéen a ngi yéen a ngi lali pexe Aliou Mamadou Dia dégg naa sax yéen a ngi lali pexe pour ñu wecci leen ko yéen yéen waa Bennoo parce que xam ngeen ni candidat la boo xam ni tey ku ko am ku nekk dangay ngay gagné incha allah nekk cinquième président waaye fi mbir mi du loolu mbir mi du loolu man li may woo sama mbokki PDS yi mooy ñëw leen ñu ànd ànd ak Aliou Mamadou Dia bi nga xam ni Nations Unies bi nga xam ni Nations Unies téye na ko pendant pendant dix-huit ans di liggéey ak moom mu nekk candidat boo xam ni nee na su ma ñëwee su ma ñëwee dootuma siégeet yi dootuma xam ngeen li may wax da a foog ne ay caaxaan la conseil supérieur de la magistrature Aliou Mamadou Dia nee na man suma ñëwee duma ko siéger damay bàyyi ñi nga xam ñi mooy justice mu am indépendance am assemblée nationale am indépendance am mais ñun ku ne xam na ni tey li ngeen di wax di ko xeex naan dañoo bëgg mu leer mais ñun ñii fii la ñu jël maak du Niang sama collègue yóbbu ñu prison. te loolu yéen assemblée nationale yéen yéen a seetaan lu mel noonu léegi nag léegi mun leen ñëw ba fii tey mu te nag am na ku fi dugal ku léegi te xam naa du mujj fenn am na ku fi jël ku léegi suñ président Birame Souleye jël na fi ku léegi te du mujj fenn léegi nag le problème en est que le problème en est que yéen man li ma leen di ñaan mooy wax dëgg yàlla ñëw leen rek ñu dem élection man loolu rek laa leen ñaan parce que su ngeen taxawee fii naan naa dañuy reporter élection yi. wax dëgg yàlla loolu gàcce la yéen comme pare ngeen kay pare leen ñu dem campagne beneen bi ci des mooy man ñépp ñi nga xam ni ñooy magistrat yi ñoom yàgg ngeen a taxaw fii di leen leen tagg naan magistrat yi fii force reste à la loi dugg na fii génn na fii tey nag su ngeen ñëwee yow seeni i di ko dóor magistrat yi vraiment loolu lu ñu jaaxal la man yàlla xam na ni démb démb fii bi ngeen commencé di dal ci magistrat xool naa xool fenêtre bu ma mën a jaar fii mais gisuma ko mais sinon ko dama doon tëb parce que am na loo xam ni xel mënu koo xalaat ngeen toog fii di tagg magistrat yi chaque jour ngeen leen di tagg ñuy ànd ak yéen ngeen naan magistrat magistrat mais dem ba mu leer ni leen su ngeen demee élection ngeen ñàkk ngeen taxaw fii di di yekk magistrat yi du n'importe quoi mais loolu gàcce la nañ waxante dëgg te li ma leen di wax nag bët yi ngeen may xool xam ngeen ni li ma leen wax ay dëgg yu leer la ñëw leen ñëw leen ñu dem élection libre et transparente waa wàllu yi ñëw leen ñu ànd ak yéen ñun yàgg na leen a soutenir le mouvement Dahiratoul Moustarchidine wa Moustarchidaty soutenir na PDS ba tey Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy Ablaye Wade moo tax mu dugg prison kon ñun lu ngeen di xeex dañ leen ci jàppale bu leen topp nag ñoo xam ni bu ngeen jiitoo seen bopp toj ànd boo xam ni ñii ngeen nar a àndal fexe leen ba bu leen leen jiitu te ñoom fi mu nii li ñuy xeex lépp seen intérêt lañ lañ ci jug mais xam nañ ni yéen ñii li ngeen dëgg amalu leen njariñ ñoom mais dañuy xool rek ñun ci prox ndoloo ba reporter élection yi bu ko defee ñu naan c'est-à-dire ñëw leen ñu dem sëgg bëre bëgg bëgg bëre wax ba suñ secrétaire général waxoon Cheikh Tidiane Youm bëgg bëre bëre bañ bëre bëre wa ilay xaar incha allah. merci chers collègues la parole est à notre collègue Alioune Gueye suivi de Roqi Ndiaye. monsieur président mes chers collègues monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu dafa am lu ma bëgg a jëkk leeral muy le groupe Wallu le groupe Wallu euh, déposé wul demande de mettre sur pied une commission d'enquête pour mettre pour euh, euh, conflit yi nga xamante ni nit ñi dañ ko yaakaar ci pouvoir yi nga xam ne moo am au niveau di Sénégal li group wàllu def man dama jàpp ni républicain yépp dañ ko war a saluer parce que li tax ñu def ko mooy c'est pour defendre la république et c'est normal dans toutes les démocraties du monde qu'un groupe parlementaire indi benn demande pour ñu taxawal commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale yàlla dafa dogal nag bi ko group wàllu indee pour défendre la république mu dajee ak ay parlement yu bari d'accord ci ay parlementaires yu bari d'accord ci kon nag li am tey dama dégg ci mbedd mi ñu naan une nouvelle alliance entre Wallu ak APR wala une nouvelle alliance entre kii ak keneen déedéet bu leen jaxase xelu askan yi bu leen jaxase Wallu ak askan wi Wallu dafa def normal gis loo xam ne nii c'est un danger pour la République